bismillahi rahmaani rahim wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa xadimihi amin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di ñëwaat ci jotaay biñ baaxoo am ak yéen ci waxtu wi ci jamono bu nekk muy alxames bu jot ci waxtu wi ndem soob na yàlla tey nag ñu ñëw ci lenn loo xam ni njariñ la loo xam ni moo ëmb mbooleem njariñ yi teyit téere la boo xam ni moo ëmb mbooleem téere yi teyit suñ borom subhanahu wa taala mbooleem lu ñëw ci kaw suuf rek neena na alquran mooy li ci gën ñu ñëwoon tey nag ci jagleeli alquran ak ay njariñam ndax alquran dafa bari ay njariñ lool te itam ki koy jàng ci waxtu wu ne di ci farlu loolu itam dana koy jëriñ ci waxtu wu ne ndax nit ki dafa war a def kem kattanam ba fu mu toll rek yitteem jëpp di jàng alquran te fu mu toll rek yitteem jëpp di saxoo laab te njëriñal jàng alquran bokk na ci ki koy jàng dana jige yàlla subhanahu wa taala kii jàng alquran day jige yàlla subhanahu wa taala ndax buñ ne sun borom subhanahu wa taala ay waxam la ki koy jàng di ci farlu fu mu toll def ci yitteem jëpp du yemoo ki nga xam ni jàngut alquran ndax alquran waxi suñu borom la joo xam ni bi mu ko indee daf ko indi ngir nit ñi di ci sukkandiku rek mel na ni sëriñ bi waxoon na ni amma fawaidul qiraa faqad raxaba fiha qawlu baadi man naqad fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra alquran la yansaahu képp koo xam ni bëgg naa jigéen boroomam bëgg a ci boroomam bëgg boroomam fu mu toll dina ci xelam nay saxoo di jàng alquran ci waxtu wu ne ak jamono ju ne kon loolu tax na sëriñ bi nii képp koo xam ni namm na ngërëmal yàlla na na saxoo di settantal alquran ak di ko jàng koo xam ni namm na ngërëmal yàlla nay saxoo di jàng alquran te di ko settantal ci waxtu wu ne loo tax mu ni fa man fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra'u alquranu la yansaahu qultu fa man yurid rida rahmani fal yusbitan tadabburul quran képp koo xam ni bëgg na di jige boroomam tey am ngërëmal boroomam ci waxtu wu ne nay settantal alquran te saxal ko ci xolam ci jamono ju ne ak waxtu wu ne ndax alquran dara dafa yemawut ak moom alquran dara dara dafa yemawut ak moom moo tax nit ki nay farlu rek yitteem jëpp mu doon waxi suñu borom subhanahu wa mu di ko jëfe ci kem kàttanam ndax al alquran ni ma ko waxee woon rek maa ma fil kitab min shay'in suñ borom dañu ko andil ngir ñu di ci sukkandiku ngir lim bëgg ñu di ci aw loolu itam tax na nit ki kon fu mu toll war di ko xamlu te di ko jëfe ba tey ki nga xam ni dafa dafa dafa saxoo di jàng alquran na fexe ba bis bu ne mu jàng ko donte ñetti isib la cay jàng sax na fexe ba bis bu ne mu jàng alquran donte ñetti isib la ndax alquran ki koy jàng yemawut ak ki ko dul jàng ndax boo xoolee boroom xam-xam yi sax am na ci ñenn ñoo xam ni diisal nañ lool nit xëy suba ba jant so te gisut kaamilub alquran kon loolu lu mat a bàyyi xel la ndax alquran mooy matière bépp xam-xam ci àdduna ci waxi mbooleem kilifa yi mbooleem boroom xam-xam yi. te itam sib nañ lool nit toog ba jant so te gisut kaamilub ba jàngut alquran moo tax sëriñ bi ni adim tilawatan li zalika alkitab walaw salasatan min al anzabi li annahu maddatu kulli ilmin fi hasihi dunia bi qawlil qarmi kon loolu war na nit ki ci jamono junni ak waxtu wune ne mu di ci farlu te di ci def kem kàttanam ndax xam-xam moom dara daf daf dara daf ko ëpp tuyaaba daat ni fa adamu nasari kulla yawmin fi musha fi mushafin kuria indal qawmi nee na nit ñu baax ñi mooy ñi nga xam ni nit yi tasawuf lañ sim nañ nit ki toog ba jand soo te gisut kaamilub alquran waxuma la ak di ko bañ a jàng kon loolu war na jullit bi di ci bàyyi xel bu baax a baax ci waxtu ne ak di ko wattandiko ndax iza iza nazarta waahidan fil mushafi tuaddu qurbatun bi qawli salafi xool bi ngay xool kaamilub alquran rek mboolem boroom xam-xam yi wax nañ ni xool bi ngay xool kaamilu alquran di nga ci jëlee njariñ loo xam ne njariñul adduna la di ci jëri itam njariñ loo xam ne njariñul alaxira la te itam di nga jige sa borom subhanahu wa taala te itam danga doon koo xam ni yàlla dana la defal foo toll rek ci lim bëgg nga nekk ci te itam alquran doon na doon na loo xam ni njariñ lim am tax na Euh, yonent bi saa sallam boo xoon ni ki gën ci yéen rek xayrukum man ta'allama alquran ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni xam lu na alquran ba noppi di ko xamlewaat kooku mooy ki gën ci yéen te itam mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi xam lu alquran ñu koy settantal te di dem ci bërëb yu laab di ko fa xamloo te itam la ca gën mooy ki koy jàng fu mu mën a nekk rek nay taqoo laab fu mu fu mën a nekk rek ak jamono bu ne nay taxoo laab ci waxtu ne ak jamono bu ne te itam ki wattu alquran moom koo ki wattu alquran ba noppi di ko jëfee ci li alquran wax kooku mbindeef la moo xam ni dara dara da koo gënte jige yàlla mi ko bind mbindeef moomu kon loolu war nit ki di ci bàyyi xel bu baax a baax ndax alquran moom mooy matière u bépp bépp xam-xam mooy matière u lépp lépp lépp njariñ mooy matière yitam lépp loo xam nit mi ngi koy fàggu adduna ak alaxira di ca sukkandiku rek sukkandiku ci alquran moo ci gën kon loolu mat nit ki di ko bàyyi xel bu baax a baax kon itam bokk na ci itam ki nga xam ni mi ngi jàng alquran saa yu ko jàngee ba noppi mu def ko ngërëmal yàlla te di ci ñaan ngërëmal yàlla ci jamono ju ne ak waxtu wu ne di ci di ci ñaan itam suñu borom teg ci jub di ci ñaan itam suñu borom saxal ko ci sax ci ndigalam ci jamono june ak waxtu wu ne te itam ki nga xam ni day jàng alquran bokk na ci itam muy taqoo laab ci waxtu wu ne te itam muy ñaan ñaan itam baax na lool ginnaaw boo jàngee alquran ba noppi waaye itam am na waxtu yuñ ko gën a nangoo amal amal lasi yustajaabu lahum fa minhum almubtaru summa almuslimu kadalika almatlubu mutlaqan walaw yunsab lil kufri kama anhum kama anhum rawaw bokk na ci itam ki nga xam ni mi ngi ñaan koo xam ni dafa loru moo xam ni diggante bi mu loroo dafa loru ba kenn mënatu ko kenn yaakaaratut foofu kenn ku may yàlla dëgg la boo loruwut sax yàlla ngay yaakaar waaye diggante boobu comme liñ bëgg a mooy gisoo fi menn mbindeef moo xam ni sabab ci sabab mën na laa xeetali waaye yaakaaroo fa kenn ku may yàlla mooy labalab ba sonn te gisoo kenn lu mel ni loolu waxtu waxtu nangu ñaan la te itam koo xam ne nii dañ laa tooñ ak tooñ gu mu mën a doon jamono jooju jamono it nangu ñaan la koo xam ni itam donte ki la tooñ sax way weddi la ku gëmut yàlla ñaanam googu suñu borom da koy nangu bokk na ci itam ñaanu gu waajur ci doomam bokk na ci itam waaju baax joo xam ni farlu na ci li ko suñu borom subhanahu wa taala digal bokk na ci itam nag ba tey koo xam ni day day tukki te itam dafa woor ba ngoon jot muy dog waxtu woowu itam waxtu nangu ñaan la moo xam kuy tukki moo xam nga woor ba ngoon jot yooyu yëpp waxtu yi nangu ñaan la ak buy taw itam waxtu nangu ñaan la te itam bokk na ci itam nit ki di farlu fu mu toll bu gisee ku baax koo xam ni am na ci moom yaakaar mu di ko dékk ay loxoom te fu mu toll muy tuub tey dellu ci boroomam ci jamono ju ne ak waxtu wu ne te itam bokk na ci itam nit ki buy ñaan lu itam na nungoo buy ñaan boroomam na nungoo xam ni boroomam rek mooy maye buy ñaan loo mbindeef itam ci barkeb kooka na xam ni itam suñ borom rek mooy maye lu ma a daal na xam ne kii maye yàlla ki xañe yàlla loolu itam war na bu baax a baax mbindeef mi di ko fàttaliku ci xelam te di ko bàyyi ci xelam bu baax a baax wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa qadimihi amin